asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk Sénégal yëpp di nuyu waa àdduna di jiital ci nuyoo bi sunu xalifa sunu sëriñ sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di nuyu tamit xalifa Tiwaawan bi di ko ñaanal moom it mu yàgg fi te ànd ko di ko defee noonu yëpp ci këru tarixa diine yëpp di santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax xaadimal Moustapha di santaat Serigne Saliou Mbacke sama yaakaar donc li waraloon tey teewaay bi waxoon naa ko ci bi may doog a génn ci jafe-jafe bi nga xam ne mooy natt bi ma daloon te sunu borom teg ko sama kaw ma nangu ko lool ànd ànd ci at moom euh, waxoon naa dinaa defaat beneen jotaay mooy jotaay bu mel nii tey pour leeral mbir mi nga xam ne moom lañ ma téye woon ci ci ci kaso bi muy mbirum euh, ceeb ndax gis naa ñu bëri journaliste yu bëri bind nañu te bindin yi wutee na ku nekk at li nga bind at li sa moroom bind dafa wutee ñii ngi wax ay soixante-dix millions ñii ngi wax ay cent millions ñii ngi wax ay nangami nangami millions te mbir mi du woon du woon loolu beneen bi tamit dossier bi da dañ ciy dugal turu Wally Seck ñu ni affaire oto la du affaire bi du problème mu oto affaire bi problème mu ceeb la ceeb bi nga xamante ne ni que dama ko doon liggéey at benn jëwriñ ju naan euh, Serigne Xabaan Gueye Euh, su ay indien yi nga xam ne ñoom ñooy importer ceeb bi di ko indi ma nekkoon at ñoom ay at di liggéey at ñoom te musul am jiixi jaaxa ci man sama diggante at indien yi donc Serigne moo dox relation boobu nag sama diggante ak ba ba liggéey boobu ma seqoon at ñoom am mbir mi nag mbirum ceeb la ci lu toll cent million la woon bi mu matee cent millions daa am yenn jëwrin bu ñëwoon sama entrepôt ñëw jënd ci tollu ci dafa njëkk ñëw jënd deux cent dix tonnes jëlaat yeneen deux cent cinquante cinq tonnes yoo xam ne deux cent dix tonnes yi daf ciy waxaale man ba mu juboo ci piri deux cent cinquante cinq tonnes yi mu waxtaan ceeg Serigne ba ñu juboo ñoom ñaar ci prix Serigne ne ma jox ko deux cent cinquante cinq tonnes ak deux cent dix tonnes yi mu boole lépp boo defee ci calcul ci xaalis bi mi ngi toll ci dix millions ay euh, ma ngi toll ci cent millions deux mm, moo fay ci lu toll ci ay moitié bi quoi joxe ci lu tolloot euh, cinquante million mu desoon soixante deux million cent cinquante mille moo desoon ci xaalis bi lu mu waroon a dolli loolu moo waral problème bi yëpp soixante deux million la lépp lépp lépp yu teg cent cinquante et quelques mille bi loolu amee mu toog ak diir fayul ma woo ko téléphone. ne ko ah jëwrin sa waay kat ginnaaw yàlla daa dogal man nga xam te man tamit moom man la xam te man moom ñuy liggéey jël nga ceeb bi fay ci lu euh, trace trace bu njëkk bi fay nga ko ci lu ci ci lu jaar yoon jox nga ma ay chèque ma retiré chèque yi yaakaar naa dossier yëpp ma ngi nii te chèque yi joxe naa ko sax ci tribunal euh, central bi ma bi ñu ma convoqué ma joxe chèque yi nga xam ne moom la njëkk a fay yaakaar naa ne ki nga xam ne day fay daal di def ay chèque u 10 millions 120 fay bu leer naññi mu ay sec boo xam ne day am trace boo demee ba dese weccet mu lu toll ci soixante et quelques millions nga war ko fay du ne nit ki day ñëw rek nga yëkkati xaalis boobu jox ko te amul desaat loolu loolu loolu loolu teguwul ci ci fenn bi mu bi loolu amee ma woo sa waay moom may woon États-Unis Serigne Xabaan ma ne ko ah Aliou Penda day moom maa ngi koy woo mais dafa demoon Dubaay mu ni waaw man woo ko sax moom ma ngi Dubaay affaire yooyu noonu ma ne ko waa kon yéen ñaar jokkoo leen boobu laa ci a xam dara ñuy dox di dox di dox ba ci yàgg Serigne woo ma ne ma Aliou Penda foo ko dégg ma ne ko ah déggaatu gu ma ko de ndax waxoon naa la yéen ñaar ngeen ngeen ngeen gérer quoi mu toog ne ma Aliou Penda mi ngi Sénégal maa ngi koy woo mais mënu ma ko jot man nag dinaa ñëw Sénégal mane ko soo ñëwee Sénégal defal plainte mu fay ñu sunu xaalis bi mu ñëwee Sénégal woowu ma waxuma dara man damaa jékki saa rek ñu woo ma téléphone waa central woo ma ne ma Modou a Amar man leen waaw ñu ma da nga am benn pelent ma ne leen plainte lan. ñu ne ma xabaan géey man leen maa ngi ñëw ban heure ñu ne ma 10 heures 9 heures fa la fekk kon kooku dawul bi ma demee ñu laaj ma ma leeral leen ne leen waaw dëgg la fay na ñu ne ma ah boo fay na man leen waa fay na ñu ne ma ah kii ne nee na fayut man leen déedéet dafa waroon a wax lépp ni mu demee affaire bu du 60 et quelques millions cent et quelques millions la woon te dafa fay lu njëkk li ba dese 62 millions yi teg cent et quelques comprendre ginnaaw moom dañuy fay na dañuy fay fay na ma te man gisuma xaalis bu ma fay na indi lu leer loolu dafa lëndëm bi ma waajee laajee loolu ma leeral ko yëpp yëkkati seg yi jox ko ñu ne ma waa dossier bi waa dafa tudd ne am na ay oto yu mu la joxoon te oto bi nee jotaatu ci te it am na ay oto yoo xam ne nee na daf ko daf la ko joxoon nga jaay ko waali waali fayu ma ne ko loolu du dëgg man waali desee ma benn dërëm dossier yaa ngi nii oto bii ngay wax te oto bi moom moo ko indi bi mu koy indee oto bi dafa paan pièce bi mu paan mi ngi nii seg yaa ngi nii gis nga seg yi ma yi ma waaju bindaloon pièce bii la oto bi paanoon bi bu paanee yàq moteur bi ma ne ko oto bi dafa paan te mënatut a baax fekk moom am na ku mu yoreel xaalis mu ne ma oto bi wanteer ko la ñaata lañ ci mën a am ma ko man xawma ci dara waaye dinaa laaj mécanicien bi nga xam ne moom moo ko yor def mu ne ma fayal ma ci bor nangam ak nangam ma fay ay bor desar yaa nii kii moom laa fayoon bor bi après yëpp dinaa leen ko woon ngeen gis ko mm-hmm. dinaa leen ko woon ngeen gis ko beneen bi mu ni Wally Seck da koy dañoo dañoo jaayoon benn oto. bi mu jaayee oto bi waali joxuñu joxuñu xaalis waali yàlla dafa dogal ne man at moom jàpp naa ne man bu ma loon un milliard sax man sama bopp laa la wax bu ma waali loon un milliard duma ko ko laaj te mosumaa yoreel dara dara oto bi ñu jaay waali bu njëkk bi ñetti oto loo xam ne laa ko jaay waali te waajee ko moom te waali dafa fay xaalis ba mat sëkk te oto yi waali gisu ko waali dafa may woo ne diw demal ci diw mu joxal oto kooku ñëw ma ko am caabi jaa ngi nii mu dem waale woo ma ñaata la ma ne ko temps la mu ne ma ñëwal kër ga ma ñëw mu fay ma am na ay seg yoo xam ne daf ma ko bindal te seg bi ma ko retiré dara nekku ci ma jël xaalis boobu bu njëkk bi ma ngi toll ci 6 millions benn Ford la bi ma ko jaayee 6 millions waale jox ma 4 millions daal di may moom sax moom moo man woowu ma ko mu woo ma ne foo nekk nii ma ne ko maa ngi maa ngi nii sama kër mu ne ma ñëwal kër ga ma dem këram boobu ma ngi dëkk Almadi bi ma ñëwee mu wàcc juste na ma yëgal ci oto bi ñu ànd ñu demaale mu yëkkati 4 millions jox ma bind ñaari segu 1 million yoo xam ne banque yi bokkul ma denc 4 millions bi récupéré dem xëy récupéré ñaari seg yi ñu fay ma ma ki nga xam ne mooy mooy borom xaalis bi parce que nee woon na ma sax oto boo jaay am nga ci 500000 ma ne ko loolu amul solo loolu man taxul ma laaj ko ko oto bu ma jaay taxul ma laaj ko dara ndax soxlawuma ko damay xool nit léegi bi ñu xam ne jaay nañ ko 6 million ma woo ko ne ko xaalis baa ngi nii mu ne ma envoyé ma cinq million yi ma envoyé ko 5 millions envoyé ko mu dem États-Unis fekk ji ko quoi léegi mu ni ma 1 million bi ci des bureau bi nga xam ne moom dafa loué woon te maa naa demoon dox loolu ba am marché bi ba loué bureau yi ñu waroon a fay 900000 ci bureau bi yaakaar naa Russie Russie sec bi mu ñu nii sax CVAO bi euh, BICIS bi nga xam ne falaa defee dépôt bi en 2017. Merci. precision. bi sefe a ou bi Bi sis bi kwa. reçu yaa ngi nii donc mu nekk bisis BICIS bi nga xam ne mooy compte compte femme bi moom apartement bi gis nga ko la 4 euh, waaw mu ngi nii 2017 voilà gis nga ko nii reçu baa ngi nii mu leer gis nga neuf neuf cent mille dañu waroon a fay foofu femme bi nga xam ne moom moom kër gi reçu baa ngi nii bi ma déposé xaalis bi neuf cent mille yi mu jox ma sama reçu ma denc ndax 5 euh, millions ya dem at 1 euh, million ba des lu ca des du 100000 100000 francs yi mu waroon a fay gardien bi nekk ci bureau bi 70000 ma yëkkati ci 70000 fay gardien bi nekk ci bureau bi bi nga xam ne moom mooy gardé ci bureau bi ñu jël mu des ñaata trent 30000 yi mu ni ma jëndalal ma ci sama yaay ay fruits noonu laa demee Sandiniéry yi taal sama oto dem jëndal yaayam lépp fruits ci conteneur yi waroon a ñëw. yaakaar naa dossier yaa ngi nii amul xaalis bu pour mën a fay conteneur bi transitaire bi conteneur bi dossier bi mu yaa ngi nii yaa ngi dégg mu nekk euh, dossier yi nga xam ne mooy dipa lépp lu ñu waroon a fay ci conteneur yi mu toll ci 10 conteneur mu waroon a fay 7 millions 500. fekk 6 million la ñu yor pour jaay bi ñu jaay oto bi ma dem sama man dem sama bopp man sama compte génne génne 1 million 500 mottali 7 millions euh, de mottali 6 euh, millions yi muy ñaata million millions cent ma fay affaire conteneur yi muy 10 conteneur wu ceeb bi parce que dafa jëloon engagement moom ci indien yi ne leen ceeb bi bu ñëwee dina ko mën a génne ma dem fay loolu ba 10 conteneur yi génn ñu jaay ko 10 conteneur yi bi mu génne sa jaarul jotu jaar entrepôt. ku naan benn pas bu nekk commercant bu nekk Sandiniéry moo ko jënd ceeb bi yëpp conteneur yi entrepôt am lañ ko wàcce mu fay ma xaalis bi jour boobu ma ma jox ñaata 18 millions la ma njëkk a jox ma dem retiré ko ci seg la ma jox ma dem retiré ko ci banque bi denc léegi fekk am na yeneen 18 conteneurs yu war a ñëw pour ñun te transitaire bi conteneur bu nekk 1 million la ñu koy génnelee ma jëlaat 18 millions yooyu jox ko ko pour 18 conteneurs yi agsi 18 conteneurs yi bi ma agsee ma wàcce ko ma dem loué foire. yaakaar naa contrat foire bi ma ngi nii biit ma koy defal mi ngi nii lu leer naa ñi ma ma ko doon loué euh, foire ñaata la woon sax ma ngi nekkoon un million deux cent cinquante la ko doon loué par mois mu defal ma contrat ma yëkkati deux mois jox ma yëkkati euh, un million cinq cent jox ceeb bi génn ma yóbbu ko foofu ci entrepôt bi yaakaar naa dossier ceeb bi bi ñu koy wàcc ci entrepôt bi ma ngi sama téléphone envoyé woon naa ko jëwriñ pour mu tiireel ma ko comprendre muy muy euh, muy ceeb bi nekk entrepôt xam nga kon xaalis bi foofu yoreelutuma ko dara ndax 18 conteneurs yi génn na ci jàmm ñu wàcce ceeb bi 18 conteneurs bi mu génnee ma am benn client bu ñëw jënd ceeb bi jënd ko ci deux cent cent cinquante 250 257 mille par tonne ma jaay ko ko lépp jour boobu yaakaar naa daf ma fay liquide plus de cinq 500 millions ma teg ko sama oto 500 millions million bi ma ko tegee sama oto. def na sama kër une semaine yaakaar naa bu ma nekkoon ku jubadi wala may sàcc 500 millions boobu laay njëkk a rawale ndax moo ëpp 64 millions 62 millions. am déet ma jël 500 millions boobu denc ko sama kër pendant une semaine ba jot ko moom sëriñ parce que ma ngi woon États-Unis di dem di dem doo ko mën a jot pour te WhatsApp rek nga ko mën a jotee te bu connecté wul doo ko mën a jot. ma woo ko ne ko ceeb bi jaay naa 18 conteneurs yi 500 mille la 500 millions la léegi xaalis bi ma ngeen man une semaine ma ngi nekk sama kër. te loolu bëgguma jël risque yooyu muy nekk sama kër di fi yàgg mu ne ma noonu léegi demal ville boole ma benn waay ma dem foofu pour déposer xaalis bi bi ma demee ma jot euh, razan indien bi bi ma jotee indien bi voilà ma ngoog décharge bi ma bi ma joxee waa ji xaalis bi cent millions ma yëkkati ko jox ko ko ñu ànd ci banque bi nga xam ne mooy banque indien yi ville mu dugg verser xaalis bi yëpp ba mu mat malade yi génnaat dem voilà mi ngi nii décharge baa ngi nii comprendre nga bi ma compter xaalis bi ba mu mat moom mu verser ko ci compte indien yi ma dem nes tuuti bu mag bi nga xam ne moom moom marchandise bi woo ma muy Razan ne ma vraiment Moodu man dama am compte damaa kontaan ci yow ndax bi nga xamante ne suñu marchandise ñëw na Sénégal te yàgg nañ fee nekk am ay clients yoo xam ne ñu bëri jaar nañ suñu kaw jàll. bari na lii ko mënuñoo lim sax ñi jaar suñ kaw jàll waaye ba nga nekkee at ñun ba léegi gis nañ ni suñu njaay mi ma ngi avancé benn te nit mësul am xalaat pour dóor ñu léegi bi loolu amee nekkee moom sawaay moom moo bëgg dóor indien ci kaw dóor indien sama kaw la a jaarale bi loolu amee ñu dem tout may dem di jaayaat bañ amaa yeneen vingt conteneurs yu ñëw conteneurs yi noonu lay tegaloo quoi day kii par nànk-nànk bañ doon waaj a indi bateau bateau ceeb indien yi doon nañ waaj a indi bateau pour indil ma ko man pour ma jaay lépp biñ demaatee ba ci la Aliou Penda mii nag ñëw ki nga xam ne moom moo nu yoreel euh, xaalis boobu ci la ñëwee nag ci appareil bi ñu waajal màggalu Touba daaw jéeg parce que loolu ma ngi nekk ci décembre 2020 ci la lépp am décembre 2020 donc te oto yi muy wax ne ci la am dañ ko cee deseel 1 million yooyu 1 million ku la ko deseel 2017 ba léegi ngeen di liggéey laajoo ko ko néeg ba tey nga koy laaj ndax loolu yenn na te li nga yoreel kooku moom laaju la ko ñuy dem ba Aliou na ñëw jënd ceeb boobu bi mu jëndee ceeb bi yoreel ñu 62 millions et quelques yi léegi Aliou na moom fay na lu njëkk dese moitié ma wuyu ci ni ma war a wuyjee ñu téye ma garde à vue ma téye garde à vue ma woo madame Soxna Aidara ginnaaw ñoom samay nit lañu te lu may dugg dañ ko war a yëg te tudd na moom waa ji tudd na waale ci dossier bi ma woo ko ne ko neel sa waay maa téye fi garde à vue centrale ci jour boobu bi bi muy ñëw moom ma indaalee sax yaakaar naa moom ndoguwul sax dafa dafa bàyyi ndog yi daw ñëw foofu fekk ma fa bi mu ñëwee fekk ma ci saal bi fi ma toogoon gars yi waali dafa dugg rek ñu wàcce ma léegi desat waali xaw ma nag lu ñu fa wax lu ñu wax waali après ñoom seen biir parce que man nekkatuma bi waali ñëwee rek dañ maa wàccee tak buñ bëggoon kay lu leer danoo war ma bàyyi ma toog waali toog ma leeral lépp mu leer léegi nag ci lañ waxee dugal ci turu waali waali dama ja seqat waali jaay oto déedéet déedéet demeewul noonu waale oto bi mujjee jënd ci man Ford la Ford pick-up te bi mu ko jëndee ëpp na ay presque dix million et quelque te desa sec bi mi ngi fii photocopie sec bi mi ngi fii ci kayit yi naa leen ko wan kon waale des yoreelu ma xaalis te sequmaan moom lu ma yoreelee xaalis ndax moom rus na maa yoreel xaalis te bu ma yoreeloon xaalis sax xam ne ma xam ne kii dama yoreel xaalis dama ko ko laaj dama ko koy bàyyee léegi bi loolu demee ñu téye ma garde à ne ma nag li waral dossier bi ñu téye la mooy waa ji dafa ni dafa laa joxoon un cinq cent pour nga dem fay foire fayoo ko nga dala tamit ba pare daf la daf la daf la joxoon benn sec da nga bind ci segam yi benn sec boo xam ne faux sec la ma leen loolu amul man sec yi ma bind yi ma bind yëpp surnom de médical laa ko bindee comprendre nga surnom i médical ci turu médical laa ko bindee te moom moo ma moo ma bindal kii bi sax nu ñu koy waxati procuration boobu noonu parce que dafa amee lan foire dafa amee loon foire trois mois de location yoo xam ne fayu ko te ki nekk foire mën naa woo léegi bu leen neexee mu def may livre mu dégg te kooku man maa loué entrepôt bi te man la rus moo tax génnewul bagage yi nga xam ne moo nekk ci entrepôt bi léegi bi mu ko amee le trois mois fayu ko ma ne ko léegi xam nga nooy def man dinaa yëkkati benn un million cinq cent dem jox ko sa waay ba pare mais da ngay bindaale yow chèque boo xam ne chèque de garantie lay doon pour pour pour ñu mën a def garantie bi pour fay pour fay pour pour après ñu mën a fay waaj léegi bi loolu amee mu ne ma waa defal loolu lii lan la procuration procuration bi moo ko bind pour autoriser ma man ma bind chèque pour dem def chèque de garantie pour jox ko waa foire bi ma demee yóbbu 1 million 500 yoo xam ne sama xaalisu bopp la dem foire fekk fekk yi nga xam ne moom moomu luy woon entrepôt bi ma ne ko ah dama ñëwoon waxtaan ak yow mais nag xaalis bi ma yor bëriwul benn mois la ak benn chèque de garanti chèque de garantie bi dama la koy jox bu ma la ko joxee feet quelques jour sa waay dina lijjanti xaalis bi jox la ko ma récupérer si waat chèque bi mu ne ma wax d'accord amul problème yow sama nit nga loo bëgg ma defal la ko waa ji defal ma loolu naka sa waay ma bëgg a gasal kàmbu pour dugal ma bi ñuy doxee gars yi question ne ma loolu ne ma yow dangaa ngaa yore la waa foire moom daf la joxoon xaalis ma ne ko moom mosuma jox xaalis soo wooyee ki nekk foire ngeen ngeen woo ko moom mu ñëw ngeen laaj ko ba xam man xaalis joxuma ko 1 million cent ba pare jox ko chèque de garantie parce que chèque de garantie moom moo ma jox ndigal pour ma leen ko bu ma joxul woon ndigal man du ma bind chèque de garantie bi pour jox ko waa foire ma yëkkati sama xaalis 1 jox ko léegi bu desee leen benn mois léegi nag fii quelques jours nee na dina lijjanti li nga xam ne mooy 3 mois yëpp fay ma man sama xaalis dèjà jëlaale chèque chèque de garantie bi fay leen seen 3 mois sawaay defu ko. yaakaar naa sax dañ ko mujjee génne. Euh, ci la ma gaa yi téye defee dama mbir mi dem ci yoon mi demee ci yoon it ñu tëj ma 6 mois parce que lu tax ñu tëj ma 6 mois nee man li ma def at waa amul bind. donc leerul tamit amul bind. mais bala ngay daaneel foofu. 60 mhm. millions yi ngay wax dafa lëndëm. Mhm. moom moo lëndëm ci seen diggante moo waral coow. moo dala koo fay. joxoo ko moom nee na sama bi mu ñëwee eh, non waa ji fayu ma ko bi mu ñëwee moom central sama rakk yi bi ñu fa ñëwee xam lu mu leen wax man xam naa ne Modou Amar jërul sama xaalis bu dee waxul loolu yàlla bu moo fanaan waa ji ci mbobam wax ka samay rakk ne leen kii xam naa ne jëlul sama xaalis parce que liñ liggéey man moom ëpp na ay milliards di dem te musu cee jël dara dara mais ki ñu yoreel fayu ko da koo ga da liggéey ndax premier ko biñ ko convoqué mu daamal li mu njëkk wax mooy fay na fay na googu mu wax ba ci yàgg mu leen fayut loolu moo lënt ci xelu enquêteur léegi nag man man sama bopp li ma jàpp man Serigne Modou Amar dafa complot at waaj ji. te mun leen woon jot kooku. waa jot nañ ko waa ji ñëw ne leen fay naa. xam amoon na dem ci yoon léegi moom lépp ay seg ay traces bi ma ko joxee mat récupéré xaalis ba mu mat 26 millions ma yónnee ko ko États-Unis bi ma ko ko yónnee mu war indil waa ji matériel yi nga xam ne moo tax ñu seq business bi ba waral mu jox ko 26 millions léegi fayul waa ji ba nii may waxee yow te def na 2 ans waa ji xaaral man naa ko woo léegi def ko muy livre ngeen dégg ah voilà mu leer naa ñi ci nopp gars yi léegi kii man maa taxoon demul ci yoon léegi moom bi ma génnee nag ci laa ko wax nekkoo nag affaire xaalis boobu dama bëgg dossier boobu ñu topp ko ba sa ñëw fay la sa xaalis ba mu leer nañ moom dina dem ci yoon pour mën a def li nga xam ne moom la ko yoon may pour mën a topp waaj beneen bi tamit dafa yoreel benn entreprise bu naan PA assurance PA assurance man maa doxoon loolu yaakaar naa mu yoreel leen ci lu toll lii lan la contrat la boo xam ne entrepôt bi ma jëloon muy foire daf ko war a man maa ne ko dañ koy defal assurance parce que tey bu problème amee foofu assurance moom moo la moom ngay topp muy ci lu mën di doon léegi PA assurance mu ñu facturé ñu woon ci un an yi un ngi nekkoon deux millions voilà un an ngi nekkoon deux millions trois cent soixante et quelques comprendre léegi bi nga xam ne ne moom fay na moitié bi te moitié boobu bi mu koy fay sama xaalis laa ko fayee. bëggoon gars yi defaral ma contrat bi vite fait ba waa ji d'accord ne dañuy fay moitié après ñu jox ko moitié bi ma woowee waa ji dem ci PA assurance ñu defaral ma contrat ma yëkkati 1 million 150 jox mu desaat 1 million 150 ba léegi fayu ko ba léegi ñuy fayut waa ji waa ji démb la ma woo bi mu yëgee ne génn naa daf maa woo ne ma damay plainte sa waay yaakaar naa yebal na UG bañ dem bureau pour yóbbu dossier yi pour topp pour mu topp ci yoon. beneen bi benn quincaillerie la boo xam ne dafa am lu mu waroon a tabax te yorul yorul yorul yorul yorul yorul xaalis bu mu ko tabaxee te quincaillerie bi man la xam te quincaillerie bi man la xam bi mu bi mu demee foofu mu jël fa valeur lu toll un million neuf cent muy ciment fer béton lépp yaakaar naa kayituwaay ji yëpp mi ngi fi kayituwaay ji yëpp mi ngi fii ci bagage yi day kayit yëpp mu ngi fii muy lu toll ci un million neuf cent yoo xam ne dafa jël fer beton ciment lépp pour waxoon après la koy fay ba waa ji d'accordoon ma loolu ñu jël matériel yóbbu bi ma nekkee ci mbirum yoon moom ndekete yooyu yëpp dafa ma doon bëgg a dugal ci ci jafe-jafe léegi nag xam ne ne xam naa ay point yu bëri léegi pour man ma toog pour wax ci ci ci ay ay mbiram dañuy daf may nëbbu jant bi pour ñu teg ma ay trois ans ay 4 moom loolu la bëggoon pour ñu ma ko ba nga xam ne maanaam dina dina gars yi dinañ fàtte mbir mi te buñ jaarut ci man duñ ko mën a topp yàlla dogal li muy dogal lam amul yéene suñu borom matalewu ko bi loolu amee ki nga xam ne moo di kenkaayeri boobu mu yoreel ko loolu moom tamit woo naa ne ko demal nga def sa plainte mu fay la sa xaalis bi ma nekkee ci kaso bi dégg naa jaay na ciment ba jaay na béton bi jaay na fer bi te toog na set millions mois yu ñëwul Sénégal te daawul toog 2 mois te ñëwul Sénégal ndax entreprise am la yor bu tudd e-médical toog na 7 mois ñëwul Sénégal ndax ma nekk naa ci kaso bi 6 mois 1 mois bi mu fi def te ñëwul bu fekkoon ne moom bëgg na lu jub dafa waroon a ñëw ñu lijjanti dossier yi ba pare mu fay xaalis yi wala bu dee am na lu mu ko fayee mu fay ko bu dee amul lu mu ko fayee mu wax ne amul lu mu ko fayee ñu xool nu koy gérer waaye doo jàpp nit ki sosal ko ci yoo xamante ni tënkuwul ne danga koy tëj teg ko ci yoon. li ma gën a naqari nag man affaire jàpp bi ñu may jàpp naqari ma de. lu tax mu dugal ci Wally Seck man loolu mooy sama problème lu tax mu tudd ci Wally Seck te nekku ci affaire bi ceeb la Wally xamul ne sax man damay jaay ceeb yëgul ne man damay jaay mhm. jaay Wally Seck leeral naa ko fay gi. parce ma li gi kay fi mu jaar leer na loolu en 2019 la 2017. oto bi. waali ki mu woo daf ko jox sama numéro kooku woo ma ma dem waali fay jox ma 4 millions joxaat ma ñaari segu 1 million seg bu nekk benn bu nekk un million 1 loolu ñaata la du doon 6 millions nee naa la ma yëkkati 5 millions yónnee ko ko mu des 1 million 1 million bi ci laa ko fayale fi nga xam ne mooy bureau mi 900000 100000 moo fa des nee naa la ci la fay gardien bi 70000 mu des 30000 mu jëndal ci yaayam ay fruits loolu jeexul. te daf ni moom man am naa ci mil ndax jox na ma 500000 bi segu 15 millions bàyyi nii seg bi bi ma ko joxee retiré wuñu ko parce que dañ dem ci banque bi jour boobu sax maat Serigne Xabbaan mi nga xam ne moom moom la problème ñoo ànd ci banque bi bi ñu àggee gestionnaire bi rejeté sec bi ne bi mënuñu fay amul xaalis Serigne ci jëmbam woo Aliou na ne ko ah sa dem nañ ci banque bi mais sa ne na sec bi amul xaalis sa waay ne ko man xale yi ñu ngi ci àll bi di jaay ceeb bi léegi man maa ngi Touba te Touba duñ liggéey vendredi comprendre nga Touba duñ liggéey vendredi xaalis ma ngi at man at xale yi léegi dinañ la ko jéem a yónnee léegi sëriñ ne ko waa amul problème léegi vendredi la samedi dimanche lundi ñu woo ko mu ni demaat leen ci banque bi biñ demaatee gestionnaire bi même chose mu rejeté waat sec bi man moo Aliou benn kaay di sa sec parce que sec bu amul xaalis doyuma ko dara. léegi ñu taxawaat ci 60 millions yi 60 millions yooyu 60 million bi ginnaaw bi ñu la daanee normalement am na loo xamante ni yow war nga ko fay muy. Euh, amande muy amande yeeg yooyu noonu. waaw 60 yooyu noonu ci amande bi da nga ko fay wala fayoo. waaw xam nga yoon boo amee problème xaalis mu jëm ci yoon yoon da lay teg ay amande teg la ay daan parce que ñoom li ñu jàpp mooy Aliou Penda fay na ma man maa lekk xaalis bi ma ñoom ci loolu lañ ma àtte te ci loolu lañ sukkandiku. parce que booba waaw parce que non. man li ma gën a indil jafe-jafe mooy enquêteurs yi bu fekkoon ne bëgg na lu leer dëgg dëgg dëgg dañ may may benn temps ma indi dossier yëpp comme dossier yi ma yor nii xam nga yëpp yóbbu ma ko foon. parce que amu ma woon temps pour indi dossier yi te dossier yi fa ma ko denc man maa ko xam. lijjanti ñoom la ñuy lijjanti defeere ma loolu nag ci lañ sukkandiku ñoom juge yi ci la enquêteurs bind ne ñoom dañoo bind ne Aliou Penda fay na loolu lañ bind ci dossier yi. sànq keneen keneen. waaw mais des na ba léegi ki nga war a tudd mooy ki nga doon liggéey. xabaan mooy xabaan. Moodu Xabaan Guèye waaw. waaw moom sëñ Moodu Xabaan Guèye ba nga jotee ba léegi jëflanteeg moom. Mm-hmm. ci wàllum yoon ak mm-hmm. est-ce que moom am nga yoo xam ne leer la nekk moom nii ci li ñu lay tuumaal moom daf cee takk. moom moom ma yóbbu ci yoon bi. waaw parce que da nga ne. moom ci yow da nga ne sànq ci yow la mboboo woo pour jaar di def ay. ay ay ay waaw parce que xam nga dañoo àndoon maan moom dem Gambie jaay fa benn cinq tonnes cinq conteneurs waa ji bindal ñu benn chèque boo xam ne anglais la ko bind waaye moom bi muy récupérer chèque bi man yëguma ko bi mu jëlee chèque bi bu ñu ñëw Sénégal mu doog maa wan chèque bi bi ma wanee chèque bi ma ne ko mais chèque bi anglais lañ ko def anglais du dox ci banque Sénégal yi fii mu ne non pour waa ji nee na chèque bu Gambie day dox fii ma ne ko noonu non waa ko dóor ko 31 la ko dóor ba léegi fayu ko yi di ko topp ci loolu mu wëlbatiku jëlaat beneen 40 tonnes boo xam ne mën na ko chargé loo ma chargé 40 tonnes bi mu jaay ko plus de 11 millions et xaalis boobu engrais gisuñu ko loolu bu fekki see 31 millions yi at li nga xam ne mooy 60 et quelques millions yi loolu du dikk cent et quelques léegi engrais loolu lañ koy toppee yorul lu mu ko fayee léegi nag mu ni daf ma yóbbu ci yoon pour man bu ma yóbboo ci yoon léegi Cheikh Amar wala Waly dinañ ñëw fayal ma wala man ma génne li ma am parce que doon nañ ma laaj 30 millions ci ci bi pour ma jox ko avance 30 millions léegi nit yoreel na la ngeen dem ci yoon nga naan waa léegi jox ma avance 30 millions loolu loolu fan la fan la fan la fan la sukkandiku ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko gis nga 1000 francs bi gën a ndaw doo ko laal boo ko laalee rek yàlla na génn ci yoonu murit yow amee lu ma la. xam nga xam nga ki la ameel ñemewoo ki la ameel yow ci mën ngay engagé ah parce que da ngaa bëgg boo jàppee Cheikh Fay gaaw fay wala Wally Seck ak Cheikh Amar ñu dajale at man li ma yor ñu gaaw fay ah foofu ngay sukkandiku barke Serigne Saliou loolu la wax. léegi ñu dem ba ci kanam mu ñëwaat enquêteur bi ne ma léegi li benn 20 millions nga jox leen ma ne ko mënu ma leen li ma leen wax xanaa kii un franc du ma ko jox nañ dem fu ñu neex. mais boobu am ñëwuñu. maa ngi koy nuyu sax de passage maître Tall parce que moom bi mu bi bi loolu amee après ci lañ ko woo wax ko ko parce que man samay téléphone dañ ko jëloon benn appel laa am ba ñaar muy soxna ay dara bi ma ko wooyee at sama rakk bi bi loolu amee waatuma keneen dañoo récupérer samay téléphone euh, léegi ci tey tey ñu ngi génn nag ni oto yi yu sàcc. yu sàcc ñu ngi def oto yu am kii la leer nañ kii yaa ngi nii ana kii déclaration baa ngi nii oto oto buñ sàcc du am declaration wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne teraanga ju nekk defal naa leen ko fi te maa ngi leen di waatal ci Serigne Saliou mm-hmm. alal ju ma may doomu aadama daf ma lew dama ko liggéey. rus naa may nit lu ma lu lewut ndax la may jox samay waajur mu koy dundee di ko jox keneen ak keneen mu koy dundee loolu war naa doon loo xam ne maa ko ñaq man bu ma nekkoon koo xam ne damaa jubadi wala dara heure bi milliardaire laay doon parce que ay valisu xaalis laa doon diri di ko yóbbu ci bureau muy maye suba ba ngoon kon bu ma nekkoon sàcc yaakaar naa ne milliardaire laay doon artistes yi nag bëri na ñoo xam ne sama ay nit lañu donc wax dëgg yàlla bi ma nekk ci jafe-jafe bi kenn rek rek rek laa gis muy Waly Seck moom kese laa gis at soxnaam ndax Waly dafa ma daan nemmeeku di yónni nit ci man mu mu fay ñëw soxna ay dara du jug ci di ma jot téléphone heure bu ma ko woowee mu décroché ñuy waxtaan lu yaatu mu may defal li ma gën a nag mooy bi sama papa génne àdduna fekk ma ci kaso bi nga xam ne soxna sax daanaka bi mu yëgee xibaar bi après ci lañ ci lañ déggante téléphone mu ne ma Modou ma ne ko Mbàkke mu ne ma yow Baay Faal nga foo nekk sëñ Tuubaa sa wet sama xel dalaat parce que wax dëgg yàlla bi ma yëgee sama loolu nouvelle boobu ne sama papa dafa génn àdduna ma am lu ma naqari ba kaso ba moom xawoon naa tàng lool ci man waaye bi ma jotee soxna mu ni ma Modou yow foo foo foo nekk sëñ Tuubaa sa wet rek day mel ne que dañoo jël glace xëpp ma ko ma sedd guyu loolu nekk lu ma naqari lu ma gën a neex lool ci sama àdduna ndax yëg këla yëg rek moo la sonal ndax mënoon nañu nekk toog ne ah booy bi ginnaaw fii la jaaroon nangam nangam dem na ci yoon dugal nañu waali ci dossier bi nangam nangam nangam of ma mais waali tey la ma gën a bëgg te tey la ma gën a jàppale. nit nag moom buy dox te doo am ñuy wax wala am ñuy yàq mënul ñàkk ci doomu aadama te kaso moom ay yonenti jaar nañ fa ki ma yaakaar te ëllëg jaar na fa artistes yi tamit ku dul waali fekkuma fa ku dul waali dégguma ko ku dul waali nemmeekuwuma ko. bi ma nekkee garde à vue moom njëkk indil ndogu moom fe njëkk a seet si indil ma ndogu noonu noonu la demee. noono non seet si wu ma de seet si ma de wax dëgg yàlla te maa ngi maa ngi koy siyaar ku baax la mais kóllëre dafa am solo si Abdou Lahad dafa ni bu nit yi wut alal del wut nit yi ëllëg am na fooy tollu nit yi rek moo la mën a jariñ man ci loolu laay dox ma sama sama sama sama xarit la sama lépp la ndax man waali man bu ma ko jàppee waali sekk tax wax dëgg yàlla xaw ma ko woon waaye waali sekk moo tax ma jàpp ma njaay waali sekk moo tax ma bëgg ko comprendre nga tëgg na ay ay yoon bu ma fa demee bëgguma sax bëgguma sax wax bëgguma woon a wax sax som bi ma koy may waaye mu rus naa dem soirée te du ma ko may 500 mille man rus naa loolu parce que xamul lu tax jàpp naa ko ndax waali te xamul lu tax yëg na ma maa ngi may woo di ma yëgal mbiram te man ku du soirée waale du ma fa dem de moom laa demaat ci soirée seet siwu ma woowu ma lenn li ci des ci mbedd mi xaj na loolu ñoom seen seen biir mais man sama bopp seet siwu ma woowu ma li ma gën a naqari nag ci loolu ci majaay man xam nga man moom dama nekk koo xam ne dama direct du ma du ma du ma wax ci ginnaaw doomu aadama bi sama papa gaañoo sama rakk da ko woo petit ko Mandiaye parce que petit moo woo soxna ay dara woo ñoom waaye woo ñëpp wax leen ko ñi nga xam ne samay ay xarit lañ moo ma Njaay ne ko Modou de papaam dafa génn àdduna ma Njaay ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko nag Jurbel la koy denc suba ci ci ci ci kii bi ci jeudi bi 17 bi mu ko waxee loolu ma Njaay ne ko maa ngi dinaa fa ñëw ba nii may waxee yow bu fa ma Njaay tegee tànk man maa génn prison ma dem fa loolu nag dafa maa naqari loolu xam naqari ma Mandiaye bu ñu ko waxee sama xibaaru sama papa génn àdduna yaakaar naa ne même bu ma fekkul ci biti su ma fekkoon ci biti xam naa ne dina ñëw loolu leer na ma mais bu bu bu ko sama rak wooyee yëgal ko loolu li mu waroon a def mooy taal otom dem ndax sama jëmm ndax defal naa ko teraanga même bu dee 1000 francs sax defal naa ko teraanga loolu nekk lu ma naqari trop trop trop waali ñu wax ko ko waali jënd ay nag yóbbu fa yëkkati xaalis bu bari yóbbu ko fa nag yi sax man mënu ma la wax nu mu ndax biñ ma woowee ne ma seek Seck indi na fi ay nag yu bëri man damaa tiit Wally Seck indi na fi enveloppe boo xam ne ma ngi toll ci nangam man damaa tiit ba pare woo téléphone jot suñu kër ñëpp ñu paas kenn par kenn moom Wally mu ni leen bu fi Modou nekkoon bu ma ma fi nekkoon bokk boobu ma ngi doon dem Fuuta bu ma fi nekkoon man damay teew teewaaleel Modou waaye damaa nekk ci contrat nii maa ngi ci yoon bi waaye jàpp leen ne naqar bi ma am nii man moodu naqar bi mu am rek laa am. parce que Modou dañoo bokk ndey dañoo bokk baay noonu mu nekk geste boo xam ne geste noble la mu nekk loo xamante ne ni que nit noonu la ma war a def ci nitam. gis nga nit même bu ngeen seexul teraanga rek ngeen dox daje nii rek ngeen xamante rek te musul am teraanga bu amee jafe-jafe rek war loolu laa xam te Mandiaye bu amoon jafe-jafe nii dinaa ko taxaw man te ñaanu ma ko yàlla yàlla bu ko am. man noonu noonu laay noonu laay noonu laay doxee. ci kaw kaade waale boobu mi ngi jëm la 31 Bercy Saloum Sidi Diop jàpp na la 31 Waly di sa waay bala ñu tëj foofu. la 11 pardon waaw moom sax day man moom seq nañu teraanga. comme li dal ma Ndiaye rek moo ko dal moom moom it. seet si na waaw am na artistes yi bëri na. boo xalaat fii man moom seq nañu teraanga. mais ci ñaari bis yooyu kon. waaw bis yi mooy Bercy lan Saloum. muy Sidi Diop at Waly ah. waaw xam nga waali moom Bercy Saloum bi ba mu ko njëkkee tëgg yàgg na booba ci kaso bi laa nekk di ko seetaan ci télé bi far yàlla dogal nattu bi mooy corona bi jugaat mu fomm ko bu ko bu ko jàppaatee beneen jour la 11 Sidi Diop it jàppaat beneen jour Sidi Diop tamit il faut mu am ñoo xam ne dañ koy conseiller waaw dafa manqué ñu koy xalaatal bu baax waxuma ko ngir critiquer ko waxuma ko ngir dara ndax boo nekkee ci mbir waale sa xarit la sa nit la du ngeen ay noon ndax Wally du mos a paaka di ko jam Sidi Diop Sidi Diop du mos a paaka di ko jam Wally kon du ngeen ay noonu bu Wally tëggee si saalum jàpp bisam te Wally sax contrat la rek dañ koo tëgg moom fay ko pour mu dem. donc bu loolu amee ñu jàpp ne la 11 la njëkkoon na ko jàpp ñu fomm mu jàppaat ko la 11 Sidi Diop waroon na xaar ba beneen mois wala beneen jour pour mën a def soit soit soirée moom pour mën a def concert foofu. dégg naa sax ñu ne entrée yi moom mille francs la ak 500 ak 500 euh, comprendre nga dégg naa ñu ne. Sidi entrée yi 500 la at mille francs xam cinq 500 ak 1000 francs dafa wuteet koo xam ne dañuy 10 000 la ak 20 000 ak ay table doog di ñëw comprendre nga. te waaye dafa njëkk a jàpp bisam waajal ko bu Sidi ñëwaatee jàpp moom bis boobu même chose même lépp day mel ne Sidi day day nekk di di di xeexat te sénégalais bëggul loolu. Sénégalais yi ni ngi leen seen ni bëggul kuy kuy kuy kuy kuy topp nit ba mu sës xam nga doon na fi def su waali génne son mu génne ko loolu loolu yëpp affaire u showbiz la daanaka yooyu amul njariñ waaye fii dafa def erreur bu baax a baax a baax a baax waroon naa xool beneen date mu jàpp ko mais pas le 11 bi nga xam ne moom la waali jàpp mu koy jàpp maa ngi koy ñaan na moom di conseiller ko nu wutaat ñi nga xam ne ñoo koy jox xel mu di xalaataat bu baax bu waree dugg ci dara di ko xoolaat Sidi Diop at Waly mos tëgg euh, grand théâtre Pape Diouf di tëgg di tëgg kii Cissesse mais teewul Pape fees na Sidi fee fees na mais li war waraloon loolu lan la parce que Cissesse contrat la woon te dafa jour Cissesse bi dafa tombeen moom dafa waroon a def foofu soirée mais mu am ay kii yët kii yët na xool fii ñooñu doon jaar mu jéem fa jaar mais bu mu ay rival diggante ma at Waly te man mosuma toog muy wax ci Sidi Diop lu ko am. te it mayut nit waali ñàkkut fayda bay may nit muy ñëw di wax ci Sidy Diop lu ñaaw moo koy déglu parce que amul temps boobu waali xam nga lu ko ñor dama jàpp ne kii lii moo ko ñor mooy musique gu Sénégal mooy taxawu musique gu Sénégal Sidy Diop bi taxawu musique Sénégal la bëgg waaye su la nit jiitoo da ngay xam nit jiitu na la nga fexee xool la muy def ngeen ànd ca def ko. Bëteel moom euh, xaw ma leen ñooñu xaw ma leen ba pare it euh, xaw ma kuy borom suba teel wala dara dara mais lu mën di xew daal ñoom ñëpp am na fuñ jaar at waale waaw ñëpp am na fuñ jaar at waale sama benn yaay bu nekk fële daf ma woon sax ne ma bu ma wax ci affaire maam góor parce que doon naw leen benn yaay bu nekk euh, fële ñu koy waxatee euh, États-Unis bi mu seetaanee vidéo bi nga xam ne moom moom def na ko. yaakaar naa fii la ko gédde fama ban Sénégal la ko defee at euh, beneen waaw man seetaan naa ko mu ni man duma rakk Cheikh Amar xam nga kilifa da xam ne kilifa nga ñàkk fayda mënul weesu ngay détail ci diw rakku diw la wala du diw du rakkam wala diw sëfoor la wala du sëfoor barke Serigne Saliou li ma xam ci moom bu ma ko waxoon wallahi bu leen bu yéen presse bi sax da ngeen koy rusa tiimale micro man bu ma li ma xam ci moom bu ma ko waxoon yéen presse bi dangeen ngeen koy tiimale da ngeen koy rusa tiimale tiimale micro te maam góor na xam ne kilifa la maam góor dèjà benn way la fi Moussa way ñëpp xam ko mu jasaaka yow sang be à part loolu gisaatuma dara lu mu def lu mën di xew te ngeen bàyyi xel mooy hypocrite la waaw lu mën di xew te ngeen bàyyi xel mooy hypocrite la du nitu dara moom te it maa ngi seetaan DJ Boubsou temps yi benn émission bu mu doon def ci Cheikh Amar ne artistes yi wayetuñu Cheikh Amar waaw xam nga moom sax dafa baax rek waaye du artistes yi kese animateurs yi tegatuñu son yu Cheikh Amar ah. dañuy dañuy yoratu. waaw ndax bu artiste génnee animateur moo ko daan teg te Cheikh Amar am na ay son ba léegi lu tax duñ ko teg tegatuñu ko vendredi. Oasis bureau Cheikh Amar ni fi feesee noonu la daan feesee ay ministre ay animateur ay artistes ay maire ay pa ay kilifa di ñëw di rang te ku ci nekk booy génn boo génnaale wu deux millions et quelques dina ma jaaxal léegi bu loolu amee moom li mu wax dëgg la artistes yi wayatuñ ko parce que chaque jour da nga daan dégg Pa Pape Diouf génne na fee single xaw ma lan darmanko bi nanga ma Youssou Ndour di nga ko way na fi Cheikh Amar way waaye diggante Youssou Ndour Cheikh Amar du xaalis ñoom daa fu ñu jaar ay nit nga maam bi ngeen ko dalee seetlu ba léegi non daa leer xam man du ma ragal waaw xam man du ma ragal da ngeen bëgg mu leer. waaw kan moo jébbalu ci xam nga man du ma ragal. te daanaka man moom dëkk ba ma ne yàlla voilà loolu nag waali moom wërsëg boobu la ko suñu borom jox. comme li ma wax keroog mooy yàlla da ko boole ay nit yoo xam ne duñ ragal muy nitu Jurbel ku ci mel ne man euh, ku ci mel ne Njóogu Mbay at Tafa Njaay at euh, Sëñ Fàllu at Xaadim Jinne te ñooñu duñu ay ragal comprendre man bi ma nekkee ci kaso bi dégg ñuy wax ci waali ay borom nangam ak nangam bu ma nekkoon ci biti ñooñ ñëpp laa jox seen toroxal waaw xam nga li gën a jafe ci àdduna mooy yéen mos ngeen a gis ku nekk ci kaso di def interview ba yéen dalee def ba mos ngeen koo gis man maay seul ki njëkk a def interview ci biir kaso di wax ci waali ci mbir moom ñu ko doon tuumaal te ñooñu ko doon tuumaal ñëpp wallahi waali leen gën. ay xajum mbefelaan lañ rek ni ma ko waxee képp kuy jël tuuma boobu di ko teg ci kaw waali xajum mbefelaan sax moo la tane. jël at nit koo xam ne du jullit nga tuubal ko def ko jullit kooku dina xalaata nekk ci lële. mus ngeen gis maam Ngor muy def interview di tudd sëriñam ah xam nga maam Cheikh Ibrahima Fall moom yomb na ku mu neex nga ni maam si barke maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ibrahima maam Ngor bi mu jébalu ci Cheikh Amar Touba woon. ñu dem kër sëñ Cheikh Saliou ndax bi bi Cheikh Amar di commencé yor xel comme 2009 la la ko sëñ Cheikh jox Cheikh Amar 2010 ñu ànd ak Cheikh Béthio ci biir àll bi di dugg ci tool yi di liggéey bi ñuy liggéey yàlla dogal ba Cheikh Béthio nekk à côté moom it Cheikh Amar nekk à côté ku nekk di def sa waar en 2000 2010 daa la wax de 2010 2011 euh, ñu war ñëwaat xel comme ñu jaar kër sëñ Cheikh Saliou pour jëli ndigal li comme ni mu daan def noonu déclaration bi avant xelkom bi Cheikh Cheikh ne ko maam góor ne ko Cheikh man de jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira yaay sama jëwrin loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi jébbaluwut ci Cheikh Amar ngir jébbalu ay yaakaar de jébbalu ngir alalu àdduna la jébbaloo woon. dégg naa sax ci interview bi mu ni dafa tuddee yaayu Cheikh Amar doom hmm. doom boobu ni mu demee. maam góor dafa xam nga soxnaam député la woon. député bi mu nekkoon temps Ablaye Wade la Ablaye Wade jëndoon ay fortuneur xam nga fortuneur jox ko député yi ku nekk yor otoom maam góor jëloon fortuneur soxnaam indi ko xel ko mu paan mu topp ci tànku Cheikh Amari di ko jaamu pour mu jox ko oto parce que oto bi daa yàqu 40 millions la ko mayoon mu jënd ci benn Mercedes. defaraat fortuneur ba delloo ko borom yàlla di dox ba soxnaam ah, nekk nekk ci ci ah, nekk en état. mu ni Cheikh Amar soxna si daa daa nekk ci wàllum euh, jigéen ñi yooyu waaye doom ji dama la ko bëgg tuddee doom ji dama la ko bëgg tuddee mm-hmm. doom ji juddu nekk jigéen bi mu nekkee jigéen muni ni Cheikh mari laa koy tuddee jabaru Cheikh Amar mari na ko boo ma koy tuddee nangam waaw kooku daa sa kooku nekkul ci yooyu mu ni ah, demaat si xamal na ko ah Marie laa ko bëggoon tuddee mais dafa bañ tuddee yooyu ba mu tuddee ko sa yaay si xamal génn xaalis bu takku jox ne ko dama tudd ndax tudd na yaayam rek ah, noonu lu ma waral tur bi. sax est-ce que ñun imam la mu tudd la mu tudd dana wóoruñu ndax xamuñu ñun lu mu tudd ci nopp ba en tout na yaayam la ko tuddee comprendre nga man ak Cheikh Amar dañoo bokk benn kër bu ñu nekk jur juddoo muy Jurbel papa Amar sama papa bokk ndeyet baay rakkam laa wax lu ma rakkam taawam Cheikh Amar bi mu faatoo taawu Cheikh Amar bi mu faatoo sëñ Saliou fa ñu ko denc sama wetu papa la fa ñu denc sama papa yaakaar naa barki dem bi ma demee sax gis naa gars yi dugal vidéo yi ma demoon ci armeer bi muy euh, papa yi Cheikh Amar sama papa sëñ Saliou taawu Cheikh Amar ak ñi nga xam ne mooy sunu sunu famille loolu mbokk la wal du mbokk nee na nag maa moom bokkuñu dara sant bee ñu wutale rek man na waa ñëw man na waa léegi Sénégal am na kon dem jël santu jàmbur santu ah chauffeur laa woon man de chauffeur bu riis laa chauffeur bi ñu may ay bu riche laa de sama salaire de kon kenn attunu ko président sax attunu sama salaire ah. beneen bi maa ngi wax ci cadre euh, voilà bi loolu amee ngeen baal ma tuuti mm-hmm. Wally ñëw xel comme en 2016 man naa wax ci lool mm-hmm. Wally bi mu ñëwee xel comme en 2016 ñu ànd man at moom maam góor Cosaka Wally waxoon naa ko leeral ko leeral ko leeral ñu bokk benn oto mm-hmm. ñuy dugg xel comme bi ñu duggee xelkom maam góor ci jëm boobam nekk sama wet ma ma ñoom ñu nekk ci ginnaaw waali di dawal sëñ Fallou xarit waali nekk ci kanam bi ñuy dem jóge kër Cheikh Amar dem ca tool ya ñi daan seet si Cheikh Amar xelkom mosuñoo àgg ca tool ya wallaahi kilifa ya daan ñëw yëpp artistes yëpp mosuñoo àgg ca tool ya kër Cheikh Amar lañ daan yem ñu gis ne Cheikh Amar gis nañ ne ñëw nañ mu jox leen xaaya ñu dem ñi waali ñëw sol jàllaabe waxtaan seex a mar yëpp dinaa leen envoyé photo yi parce que man ay preuve laa yor keroog maam góor bi mu jébaloo ci Cheikh Amar ba Cheikh Amar jox xab kaamil maa ngi photo naa leen ko envoyé ay preuve yu leer naa ñu laa yor bi waaye ñëwee waxtaan ak Cheikh Amar ba ci mu ne ma fils dama bëgg a dem tool yi liggéey quoi ma ne ko waa kañ dem ci biir ma dem ci sunu ci suuf ci néeg bi jox ko tiset lokos mu sol ko mu am photo sëñ Saaliw xel comme nangam yooyu noonu ñun róole ko man moom at ñëpp mu simi jaalaabi bi lem bàyyi ko léegi ñu dem dugg ci otoom sëñ Fallou nekk ci kanam waali dawal man maam góor nekk ci ginnaaw maam góor di jaamu waali laa lay waatal nii man dama mujj sax jàpp ne man maam góor du artiste quoi loolu laa jàppoon quoi pour noonu benn Baye Fall la boo xam ne dafa dafa dafa dafa ñëw nii rek pour naan day kii ki quoi xam nga ma rus rus goo xamante ne man mosuma am parce que man xawma di topp nit di ko jaamu moo tax bu ko nit defee daf may jaaxal di jaamu waali ci biir oto bi maar di taali yaa ñu dem tool yi liggéey jur boobu 2016 laa la wax de xam nga 2016 taxul gaa yi gëm waale yooyu noonu waale ñu wàcc ma ne ko sawaay mu ne mbooloo mi topp waale ma ne ko gis nga dugub boo dagg fii li ma mën a wàcc sëriñ Saliou day ndax Serigne Saliou kenn du ko jëfal dara muy neen dugub boo dagg fii jàppal ne mboolu dugub bi xam nga dugub bi dañ ciy jàpp mbooloo mi noonu lañ lay toppee 2016 laa la wax de ndax boobaa léegi wàllu gisul lu mbooloo mu ni ma ah, ma ne ko waaw dogul naa ko man mbokk su dee man ndar laa te am na lu ma sëñ Saliou defal te dina am waali dem wàcc dagg comprendre nga bi mu daggee dem dem ñibbi ca beneen xel kom ja ca la Pape Diouf ñëw bi mu ñëwee fekk Assane juuf ñëw na Sénégal bi Assane Diouf ñëwee Sénégal ñëw xel kom àndoon ñun ñu dem ca tool ya Pape Diouf li muy ba mu dalee ñëw xel kom ci Cheikh Amar ngeen koy gis ci internet Pape Diouf seet na Cheikh Amar ca xel kom kër Cheikh Amar la daan yem. te bu fa daan yam daawul dem tool ya biñ ñëwee moom xam ne Assane Diouf ñëw na mu ànd rakkam xaw ma xaadim lu tudd xaw ñu fekk ñu tool ya ñoom dañoo wàcc ci oto bi rek isis bu ñu yoroon commencé saaga ci tool yi saa waay ma xabtalu ndax man ba ma dalee dem xel kom yaakaar naa ne booba lu ndaw laa yaakaar naa nekk naa sa sama biiru ndey muy dem xel kom te boobu juddooguma te mësuma fa gis melokaan bu mel noonu te ñoom ñoom Cheikh Amar ñëpp xam nañ ma xam nañ ne man damaa direct man awuma caaxaan te amul képp koo xam ne dama lay faale ci àdduna bi ma Pa Pape Diouf wàccee rakkam ji ñu jubali ci Assane Diouf waa ji rakkam ji bi mu yëkkatee loxoom pour dóor bu ngeen xoolee vidéo yi maa téye loxoom dem bay rocc sama jaasi pour cor leen ñu daw dugg seeni oto man ne ko li ma mën a waat ci Serigne Saliou su dee ñun li ñu liggéeyal Serigne Saliou dëgg la yow kenn dootu la dégg man fayu ma ko de dama ni la damaa waat dogu voilà ndax ëttub ëttub Serigne Saliou bu ñu liggéeyalee Serigne Saliou coow at saaga ndey mosu fa am yow nga ñëw indi ko fa kon yow fekkee ne yow li ngay fekkee ne yow li may mën a waat ci Serigne Saliou moom bu ma ci tàngam loo du baax te yaakaar naa ne boobaa léegi ndax Pape Diouf déggati ngeen ko yéen dégg yi déedéet jamono yooyu moo téye réew mi jamono yooyu moo téye réew mi ndax téye na ko ku baax la nag ku baax la waaye erreur yi moo bëri comprendre nga ku baax la mais erreur yi ñoo bëri am na ay kilifa yoo xam ne bureau Cheikh Amar lañ ma daan fekk Cheikh Amar bu leen mayee xaalis bu ñu génnee dañu fecc am na koo xam ne dafa xëm wallahi jigéen te waykat la non du ma tudd tur comprendre at ñu bëri bëri at ay ministre waaw waaw xam nga ah non daa jébbalu moom moom man moom ñoo bokk sëriñ man moom ñoo bokk sëriñ parce que man ku ma xam xam ma taalibi Cheikh Amar moom la ñëpp yi wax taalibi Cheikh Amar la sama tisee yi may sol sax boo xoolee moo ci nekk te lu tax ma nekk taalibi Cheikh Amar sama mag la ñu bokk deret benn mu liggéeyal Serigne Saliou ma teg ci sama bët Serigne Saliou gërëm ko te ku jébbalu ci ku yàlla gërëm ku ku ci ku nitu yàlla ku mu gërëm daanaka yéen ñaara bokk njëbal te am na ngërëmul nitu yàlla moom Cheikh Amar ndax Sëñ Saliou gërëm na